Alfi euh, pour li mu ñuy toggal tey alors promesse bi euh, moo nekk ni Alfi da nga ñuy yóbbu euh, dëkk bu ñu naan Maroc n'est-ce pas exactement Pape Cheikh waxoon nañ ko sànq dañuy dem Maroc daal di fay jëli benn recette boo xamante ne ñoom bëri na ci seen dëkk dem ba def tour du monde ñu koy wax ay fecas marocaine mu nekk ay biscuits yoo xamante ni comme fii ni ñuy amee sunu ay bonbon rek Pape ñoom dañu am seen ay bonbon yoo xamante ni Euh, dañ ciy def seen xeetu bagage yooyu nga xamante ni boo demee Maroc danga nga ko fay fekk euh, recette bi nag dañ koy yóbbu Maroc pap yàkkal ko sénégalais yi nga xamante ni ñoo fa nekk ñëpp muy étudiants yeeg ñiy liggéey ak ña yor restaurant yeeg euh, ñëpp daal ñi nga xamante ni dañuy consommer cuisine marocaine donc bu fekkee da nga bëgg defar ay fekkaas sa kër mu nekk ay bonbon yoo xamante ni boo ko boo ko defee maanaam étape yi ci war conservation bi mën na jël 3 jàpp 4 semaines su fekkee da ko tëj ci benn boîte boo xamante ni c'est donc il te faut euh, lu toll ci 900 grammes farine maanaam 900 grammes mooy kilo bu manqué 100 grammes. su ko defee nga jël lu toll ci 125 grammes beurre jël 6 nen nag ak li nga xamante ni mooy euh, amande en poudre jël li nga xamante ni mooy grain de sésame donc ñoom ñëpp am naa leen fii euh, jël grain de sésame mooy doom yooyu nga xamante ni en général soo jëndee sa hamburger pap da nga koy gis ñu wisuusal ko ci kaw donc ñoom ñëpp ngay jël mélanger ko mën nga jëlaale tamit li nga xamante ni mooy ay fruits confits soo demee ci grande surface danga ko fay fekk mu nekk ay euh, fruit yoo xamante ne seen conservation suukar lañ ko defaree nga xam ne fruit yi dafay yàgg ci li nga xamante ne moom mooy sa congélateur wala sa endroit yi nga xamante ne fa ngay garder garder sa ay fruit beneen xeetu conservation fruit euh, ak yi nga xamante ne moom mooy fruit confit yi ñu jël su ko defee na nga daal di jël sa masse boobu yëpp mélanger ko avant nga ciy def farine bi ngay jël beurre bi nen bi suukar bi ak li nga xamante ni mooy amande yi ma cité léegi nga jaxase ko donc soo ko jaxasee ba pare nga daal di jël farine bi di ko si def ba am texture bi nga xamante ni moom la cookie di am wala sablé euh, donc mi ngoog su ko defee nag Pape nga daal di jël euh, sa paton daal di koy rouler ba nga xamante ni da ngay am sa benn boudin comme bi ma am fii ci plan de travail bi loolu mooy première étape bi donc ñu yeggee ci étape bi da ngay jël li nga xamante ni moom mooy sa jaune d'œuf Euh, daal di koy badigeonné maanaam ci kaw raax-raaxee ko ci kaw yëpp ba nga xamante ni euh, couvrir na partie euh, biscuit bi donc après mu nekk première cuisson lay dem ni boudin bi mel nii nga koy jël enfourné ko donc soo ko enfourné pendant gis ni bi dafay xaw nooy donc buñ ko bu ñu tolloo ci étape boobu nga waat li nga xamante ni moom mooy boudin bi bi nga ko enfourné 20 minutes ba pare ko génnee lan ngay def da koy teg ci li nga xamante ni mooy sa plan de travail pour mu sedd loolu daf lay permettre nga mën ko daggat donc soo ko daggatee effet boobu nga koy daggat ba pare am euh, am ay euh, genre euh, forme bi nga xamante ni moom ngay gis ni ci plate ci plate bi moom mooy fécasse donc le fait que nga jël biscuit bi dog-dogee ko defaat ko ci four bi maanaam deuxième cuisson pour nga mën a am li nga xamante ne moom mooy effet croustillant bi parce que su fekkee da nga defar li nga xamante ne moom mooy biscuit bi da ngay gis ni dafay nooy donc su nooyee dangay ngay jëlaat defaat ko ci li nga xamante ni moom mooy sa plat bi delluwaat ci four bi nga enfourner ko une deuxième fois boobu fekk na nga dog ko ba pare ba nga defar sa ay fekaas donc soo ko saafee nag ba mu croustillant ba nga xamante ni euh, bonbon boobu Pape doon wax euh, semaine ba le passé nga xam ni fan yi waxatu ko ndax bonbon da koo bàyyi am nag effet biscuit boobu nga xamante ni moom ngay wut soo nee biscuit nag xam ne lu croustillant lay nekk donc gis nga première partie bi maanaam boudin première boudin bi dañ ko daggat yaa ngi seen euh, fruit confit ci biir ak lépp li nga xamante ne moom mooy amande bi ñu ci defoon ak euh, euh, graine de sésame bi donc dañuy jëlaat nag enfourné waat ko une deuxième fois pendant 10 minutes fekk nga yokk sa four nag 200 250 degré su fekkee première enfournée bi la mën nga def 200 degré pour bañ a pâton bi nga bi nga am bañ a tas donc nag après soo paree pap da ngay am sa ay genre biscuit yoo xamante ne ça peut changer des cookies mën na changer ci li nga xamante ni mooy biscuit yiy jox suñu doom yi bu ñuy jàngi wala ñu koy def ci seen saak nga xamante ne yii soo ko defee pour 900 grammes de farine di nga am assez de biscuit pour une semaine euh, su fekkee danga am benn comme man bu fekkee deux deux ñaar nga am wala ñett mën nga pendant une semaine ngay bañ a di dem ci commerce bi di jënd ay biscuits yoo xamante ne ken amul kenn xamul fu mu jógee donc da ngay wut sa genre boîte yu mel nii nga daal ciy dugal sa ay fekkaas pap tëj ko pour air bi bañ ci dugg donc loolu moo lay permettre nga mën a garder effet croustillant boobu euh, pendant deux jàpp jàpp trois semaines donc les l'efficace Pape dañuy bàyyi mu ñor euh, ma enfourner waat beneen patron bi parce que it te au moins 40 euh, minutes pour mën ko togg pour nga am texture bi fekaas yi di laaj. am na nag façon bu nekk boo xamante ne chocolat lay nekk am na yeneen yoo xamante ni wax naa ko léegi fruits secs mën nañu changer texture yi def ci ay chocolat. donc mi ngoog yii jot na génn le temps que muy sedd ma la koy yéegalal ci kaw paap yii dama koy déguster nag parce que tey dama am ku mu wéttali muy jeyna ba Seydou Ba maa ngi moom le temps que ñu koy la antenne bi ñëw ci kanam merci beaucoup ah <laughs> kon ci li ma wax non man ah, dégg naa la dégg naa la heureusement ba ma ñi ñi seetaan laay laay waxal ma félicité waale sama bopp paap parce que ci équipe bi laa bokk équipe bi gagné mu ne day félicité boppam waaw <laughs> première chaîne Africa toog nii sama wet waaw première chaîne waaw fii nii ah. Ah, wax kër gi nag dafa am koo xamante ne mooy suñu port bonheur fii da ne ci kër gi te feeg mi ngi fiy nekk pee dañ koy jël koo koy sama waa ji waxal waay waaw ki ma war a jox léegi ma dem def lool lool di dem ci ci oto yi sama waa ji Diallo Diéry maasal noonu gi alf waaw Diallo Diéry ba ma ne alfi mi doon génn 2012 ak alfi 2016 bokkul bu ma taxawee am te loolu yaa ko waral kon tey mën nga tuddee kii bi tey yow laa tuddee lekk bi fekkas bi tey maa ko tuddee Pape Cheikh xanaa di